الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فك جيجين نيو داجي فك جيجين نيو نيو داجي كين كو نيك ني داي واخ جكرم كين كو نيك ني داي واخ جكرم تي بوغول باي دارا يونتي بي صلى الله عليه وسلم ايتي نيغو يا عائشه يا عائشه ديكو نيتالي fukki jigéen ñi ñëwoon ak benn kenn ku nekk ne day wax ay xabaaru borom këram li ci nekk yépp dana ko wax jigéen ju njëkk ji ci lañ jëm mooy aljawla fi lqadiya al ula maanaam jigéen ju njëkk ji moom dafa wax ni zawji laxmu jamal gas loolu mooy la mu ne sama boroom kër yàppu gëléem la te xam nga yàppu gëléem dafay ñagas bokkul ci yàpp yi neex lool yàppu xar moo ko dàq yàppu bëy moo ko dàq kon yàppu gëléem day saf xorom du neex ba tax ñépp di ko bëgg kon jigéen ji léebu na ni man sama borom kër yàppu gëléem la day tuuti ba pare naqari mu ne lax mu jamal gas ala rasi jabal waar sama boroom kër daal yàppu gëléem la bu ñagas ñu jël ko weer ko ci kaw montagne bu ritax soo yéegee daanu soo xiifee doo lekk loolu moo tax mu teg ca laa sahla fa yurtaqa wala samina fa yuntaqa mu ne sama jëkkër du ko yomb ndax montagne bu ritax te kawe ñu teg fa yàpp bu naqari montagne bi neexula yéeg soo xeexee ba yéeg yàpp bi laa jëriñ moo tax mu ne laa saxla fa yurtaqa nekkul góor gu yomb ba nga mën a wax ak moom wala samina fa yuntaqa yàpp boobu duufut bañ di ko segg ala kulli hal bu ñu résumé wax jooju mooy lan mooy daal jëkkëram dafa boole ñaari jikko yu ñaaw jëkkëram jikkoom ñaaw na te du yore jabar ci yore bu rafet jëkkëram buy wax ak jabaram du ko déglu su jabar ji waxee du ko bàyyi xel maanaa góor gu ñàkk teggin la góor gu jafe la góor gu naqari deret la góor gu am ay problème la dangay foog ni sax kii du ku baax waaye jafe-jafe moo tax jabaram day jeex da koy ragal a ñaan da koy ragal a laaj day ragal a wax ak moom ñaari baat mu jànni ko ñaari baat mu xas ko ñaari baat mu wax ko lu ñaaw kon bu ngeen seetlee ci aljawlal uula jigéen ji li mu njëkk a wax taggul góor ñi kon maa ngi dénk sama bopp di dénk góor ñi nañu góorgóorlu ñoom it dellu ginnaaw ba bañ yor jikko yi góor gi ndax kat góor gi li jabaram wax mooy du góor gu baax ma delluwaat ci ndaw si dafa ne zawji laxmu jamal gas ala rasi jabalin waar laa saxla fa yurtaqa wala samina fa yuntaqa mu ne sama jëkkër yàpp gëléem la ci naqar ci kaw montagne bu kawe te rittax sama jëkkër du ko yomb ndax montagne bu kawe te rittax yombut kenn mënu coo yéeg waaye yàpp ba fa nekk duuful ba tax nit bëgg a yéeg su fekkee montagne bi neexul yéeg yàpp ba fa nekk neex su boobaa da góor góorgóorlu même boo daanee dana ko jàpp waaye nga yéeg ba pare fekkoo fa yàpp bu neex kon baaxul maanaam mooy jigéen ji sonn ci bëgg góor gi sëyeeg moom fekk ko muy góor ju ñaaw ji ko góor ju bon yàlla nañu yàlla musal hada wa salla wa sallam mu nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain kon yow soxna si ma laaj la yéen a jigéen ñi maa ngi leen di encouragé di leen dénk ngeen jël boobu incha allah ak góor ñi في حديث أم الزرع مي نمر سلام عليكم ورحمة الله